بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله bismillaahi أدار يا الله سفي بقاء أبيهم لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا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 may ko fanu gudd lool waa na ko wér dolli ko kattan ba naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko te ñu moom euh, di am mbégte di toog ak yéen ci jataay bi nga xam ne jataayub fàttaliku la waaye jataayub nafaraat la waaye jataayub waxtaane almuridu saadix di a cheikh Mouhamadou Rokhaya Mbacké yàlla na sun borom dolli ay ngërëmam ak yërmandeem Euh, ñuy beral ab ziar sëriñ Abo Mouhamed xalifatu cheikh Mahamadul Mamoun ak mbooleem njabootuk cheikh Sidil Mokhtar maam Cheikh Anta gépp di jagleel ab nuyoo akub ziar sunu sëriñ di sunu jawriñ di soldaaru sëriñ Tuubaa bi nga xam ne jéegu bu mu yëkkati rek liggéeyal Seexuna Ahmadul Xadim moo ko tax a jóg di maam Cheikh Anta ibnu cheikh Mahamadou Roqee Mbacke xafisahullah waraha mbokk ñu toog fii ci kanam. Cheikh Sidil Muxtaar maam Cheikh Anta ngir fàttaliku wala amee jataayu bi nga xam ne seen émission ëttu lay doon di amee ci seen télévision Lamfal TV di am dibéer ju jot bu vingt deux h jotee ngeen di ko miin ànd ak seen bokkum taalibe Fallou Galass Syll ci wàllu micro mu jàkkaarloo ci wàllu caméra bi Alaaji Fallou saw ci wàllu machine ba Alxaaji Fallou Syll bokk yi ñu jaajëfal bu baax a baax mbokk yi nga xam ne doon nañu topp ci seen émission bii ñu weesu di émission Ëttu Murid doon amee ca Daaru Salaam Bokki Barga ci liggéey bi nga xam ne Serigne Sidi mu Cheikh Abdoul Ahad doon na ko liggéeyloo Serigne Amsatou mu Cheikh Abdoul Ahad ñu jaajëfal bokk yëpp ci réaction yi nga xam ne yëkkati nañ ko ci kàddu yi cant yi ak ay ngërëm yi lépp ak ñaan yi yàlla nañ ko yàlla boole ci barke na Ahmadul Xadim mbokk yi tey nag ñu fas yéenee fàttaliku nitu yàlla fas yéenee fàttaliku taalibib Serigne Touba. fas yéene fàttaliku almuridu saadix di ab jullit xaqan doonoon mbokkum yoonu murid wépp di woon jàmbaar ci ni ma koy faral di waxee ne bu doon ci wàllu doomu aadama nga dugal dugal ci ab armee ab général lay doon bu doone da nga koy yóbbu ci warkati fas yi ab gawar lay doon soo ko doon yóbbu ci fetalkat yi ab daan na lay doon soo ko indee ci budu murid yi muridu saadix lay doon soo ko tàbbalee ci biir jullit yi muslim xaqan lay doon kooku nag moo di as cheikh Mouhamadou Rokhaya Mbacké ñu tegoo ci jataay bi nii sama wàllu di joor alxaaji Mouhamadul Mamoun Diagne di jëwriñu sëriñ bi féete ca ngay Mexe di jàngalekatub alquran yore fa kàddug sëriñ bi ci sama loxol càmmooñ sëriñ Mbacké Madina di caatum as cheikh Mouhamadou Rokhaya Mbacké di bayfaalu sëriñ Cheikh Anta ak sëriñ Moudou Mamoun Diagne féete ca tuuba euh, euh, Madiana bokk yi ngeen jàkkaarloo ci image bi di fédération bi nga xam ne moo lëkkale mbooleem daayira aju ci kër Serigne Mouhamadou Rokhaya Mbacké te Serigne Cheikh di seen jëwriñ ngeen ñu waajal nag bis bu màgg bu nekk ci kanam di bis bi nga xam ne moom la jàmbaar ja woote woon ci eh, le 15 janvier 2000 1983 euh, euh, hmm, ca wooteem bu rëy boobu nga xamante ne bii moom la woote woon ci jamonoy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mbokk yi kooku ñuy bëgg a fàttaliku di as cheikh Mouhamadou Rokhaya Mbacké euh, damay wax ne moom lu sëriñ tubaa doon rek moom lay doon ala kulli lu sëriñ tubaa doon rek moom lay doon ndax euh, juddu dafa am solo ci doomu aadama yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi suñ borom bëggee mu dañ mu mu set ci aw tagg ba kenn du ko mën a jam ci genn fànn da koo tàmbalee waajalal ca maam ya tàmbalee ca xadd naan ba ni mu agsee ci ki nga xam ne moo di Abdullahi wala Abdul Muttalib amu ci menn maamam moo xam ne mënees na koo xas ci dara loolu day bokk ci fondation nit nitu yàlla ku yàllay waajal su la waajalee loolu ci ba noppi nag ba nga xam ne am nga judd bu sell boo dikkee daf lay andil nag ci jikko ju tedd muy makaarimul axlaax moo tax lu àdduna yàgg-yàgg kenn du la mën a jam ci genn fànn euh, kii di as cheikh Mouhamadou Roqaye nag loolu la ko sun boroom waajale ci ab juddu matale ko noonu ci ay jikkoom e, moom Mouhamadul Mokhtar la tudd Mouhamadul Mokhtar Mouhamadul Mokhtar Serigne Touba moo ko amoon amoon ko ak ku ñuy wax soxna Xari Penda Fall Mouhamadul Mokhtar bokk na ci nit yàlla yi nga xam ne njabootu sëriñ Touba gi Serigne bi day wax ne doomam ji juddu dem ak doomam ji fi am juróom ñeen fukki at boo leen tegoon ci balance kenn du ci wat sa morom ndax jikkoy Serigne Touba la ñuy yore. Mouhamadul Muxtaar moomu nag dafa bokkoon ci borom xar baax yi doon borom kiimaan yi sëriñ bi amee ko ak sëriñ euh, soxna Xari Penda Fall. boo demee fii ci daaru alimul xabir da nga fekk barabam nekk fa euh, kooku la sëriñ Touba duppee sëriñ Mouhamadou Rokhaya ndax at mi mu àdduna wala mi mu génnee àdduna ci la sëriñ Mouhamadou Rokhaya gënee àdduna sëriñ Touba duppeeku ko Mouhamadul Mokhtar moom sëriñ Mouhamadou Rokhaya doomi sëriñ Mouhamadul Mamoun la ci yow mi nga xam ne yaay topp jataay bi te mosoo fekkee ay waxtaanam ngir nga xam ki ñu bëgg a waxtaane ba bu ñu la waxee ci moom ay jikkoom ak i mandargaam nga mën a xam ne amoon na fondation bu dëgër ndax boo koy fondation lu am solo la ci fondation ci nga mën a tege ay sëtu yu dem sans nangam étage waaye ci fondation ci nga mën a tege loo xam ne du àttan lu dut am mbaarum seng kon fondation lu am njëriñ la lu am solo la ci bâtiment Serigne Modou Rokhaya nag dafa am fondation boo xam ne fu ab maçon àgg ci ak xaral tabaxam ab fondation attan na bâtiment booba moo wax ne doomi ak Cheikh Mouhamadul Mamoun la Cheikh Mouhamadul Mamoun mooy kan Cheikh Mouhamadul Mamoun mooy taawu Cheikh Sidil Muxtaar ñu ne la kon Cheikh Sidil mooy kan ñoo la mooy doomi sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ñoo la sëñ Mbàkke Mor Anta Sali mooy kan nga ne mooy doomi Maam Balla Aysa ñoo la Maam Balla Aysa mooy kan nga ne Maam Balla mooy caatu Maam Maharam ñoo la kon andil ñu kan mooy Maam Maharam loolu li tax ma indi ko ngir nga xam sëriñ Modou Rokhaya nan la demee ci ak sëriñ Touba Maam Maharam euh, ku ñu wax Aram Ñang moo ko meññi buur bu ñu wax bërgal ma fent nekkoon ca Jolof mooy seen cosaan waaye xam nga ne aram ñang maam maharam euh, ki nga xam ne Moodu la tudd Mohamed la tudd la boo dee waatee ci sëñ Tuubaa Mohamed bun Mohamed bun Habibullah Mohamed moomu nag Mohamed moom aram ñang lañ doon wax Moodu moom aram moo tax mu wolof yi di wax ma aram ma aram ci yàq la waaye Mohamed moom aram ñang la aram ñang moomu nag mooy bàjjanub awa ñang awa ñang nag moo jur Ibrahima Awañang Ibrahima Awañang mooy ñaareeloo doomu maam Maharam bu góor soxna Mbacke Awañang mam mam bokkal ndey baay mooy taw maam Maharam moom meññi la aju ci xaalima jaxate kalaak ya ca aju soxna Awañang moomee nga xam ne nag moo moo moo moo moo moo bokkook Aram Ñang moo jur Ibrahima Awañang Ibrahima Awañang moo jur ku ñu wax Anta Ndiaye Mbacke. Anta Ndiaye Mbacke moo jur ku ñuy wax maam Cheikh maam Cheikh jur ku ñuy wax Serigne Modou Mamoun Serigne Modou Mamoun jur ku ñuy wax Serigne Mouhamadou Rokhaya kon ci wàllu kër maam Cheikh loolu doy na caa xam maam Balaye sa mi xam ne maam moo jurum sëñ Mbacke Mor Anta Sali mooy caatu maam Maharam maam Maharam am na fukki doom ak ñaar am na juróom-ñetti doom yu góor ak ñeenti doom yu jigéen soxna Mbacke Awa Ñang moo di taawam Ahmadou Fary Mata mooy taawam bu góor Ibrahima Awa Ñang moo ci topp. Ibrahima Awa Niang moomu nag moom ki nga xam ne moom la baayam saatloo muy Mamballa Aysa Ibrahima Awa Niang moo ko yar. bi Ahmadou Farimata moomee Mbacke fanweeri at ba génn àdduna Ibrahima Awa moom na Mbacke fanweeri at at yi moom Mbacke ci la njabootu maam Maharam dem ba mu des mennu Mamballa Aysa moom moo ko yar taxawu ko ba mu mat sëkk moom Mballa Aysa moomu nag wax nañ ne am na fukki doom ak ñaar. yaayam am na fukki doom ak ñaar gisu ci benn doom menn Mambala Aysa moo ci dund mambalaay Aysa moo ci dund nag moo meññi sëñ Mbàkke Mor Anta Sali sëñ Mbàkke Mor Anta Sali nag moom yàlla dogal na ka njëkk ci këram moo di soxna Anta Ndiaye Mbàkke mi nga xam ne doomi bàjjanam la waaye di doomi baayam moo njëkk ci këram taawuloo fa ku ñuy wax sëñ Mbàkke Anta teg ci ku ñuy wax Faati Anta soog caa teg maam Cheikh sëñ Mbacke Anta ak soxna Faati Anta ñoom ñoo mag ci doomi sëñ Mbacke Mor Anta Sali soxna Faati Anta moo jur sëñ Mor Faati Touré sëñ Mbacke Anta moo des Njaañ maam Cheikh ci foofu la bokk. mu jur nag ku ñu wax mu Mouhamadul Mamoun taawloo ko kan mooy sëriñ Mouhamadul Mamoun sëñ Mouhamadul Mamoun mooy doomi soxna Faati Mbacke soxna Faati Mbacke moom la ñu bari di wax soxna buri soxna Faati Mbacke moomu nag ku ñu wax Ibra Kane ko jur Ibra Kane moomu nag. Anta Kandi ñoo bokk Kandi Sow ak sëñ Mbacke Mor euh, sëñ Mbacke euh, sëñ Mbacke euh, Ibrahima Awa kon mooy mooy càmmiñam moom Ibrahima Ibra Kandi Ibra Kandi moomu nag moo jur moo yor soxna su màgg soo xam ne ma ngi ko jëlee ci sox mam Balla Aysa mu di soxna Faati Balla Suxra mu am ca nag soxna Faati Mbacke soxna Faati Mbacke moomu nag. moom la ñu delloo jox ko Cheikh Sidil Muxtaar mu am ca as Cheikh Mouhamadul Mamoun Mbakke kon kenn rek la ci am. kon boo dee xool maam Cheikh Anta moog sëñ Tuubaa bokk lépp ndax maxaramay maamam ci ndey di maamam ci baay boo di ko waatee maam Balla Aysa mooy maamam ci lépp sëñ Mbakke Mor Anta Sali mooy nijaayam di baayam. mook sëñ Touba kon ñoo bokk lépp waaye noonu mu demee ak Serigne Touba nag lu ko double nag ne la sëñ Moudou Mamoun demee ak Serigne Touba Serigne Moudou Mamoun moomu nag moo am moo jël ku ñuy wax soxna Roqaya Touré Roqaya Touré Aminta Mbacke ko jur Aminta Mbacke Ibra Kani Ibra Kani Ibrahima Awañang Ibrahima Awañang maam Maharam Aminta Mbacke moomu nag moo jur Roqaya Touré Roqaya Touré moom moomu nag Roqaya Touré moomu nag lañ fab jox sëñ Moudou Mamoun muy doomi bàjjanam ba tey di doomi nijaayam mu am ca ku ñuy wax Seex Mouhamadou Roqaya Mbacke mu ganee àdduna ci atum 1918 ca buqaatul mu ci Daaru waaye dafa fekk mu taawloo ku ñu wax soxna Aminta Mbacke soxna Aminta Mbacke mi ngi gane àdduna 1915 ou 1914 ca Njaareem Serigne Touba yabal Serigne Modou Mamoun nag mu ñëw sanc si waat dëkk bii di Darou Salaam ci atum 1917 fekk na booba Serigne Touba li muy dox lépp dox na ko ba ñëw Njaareem nag toog fa àndoon ak Serigne Modou Mamoun ci la wax borom gaawaan nag na ko dëkk bee di Darou Salaam ak Touba daa doon dëkk boo xam ne mënut gent ndax bi ma leen di sanc rafet yéene gi ma leen sant sance moo tax mënatuñoo gent ndax dama leen a sanc toon lu dut ngir jaamu yàlla ci la sëriñ Mudu Maamun jote ndigal nag ci sëriñ Tuubaa mu jox ko ndigal mu sancaat Daaru Salaam ci atum 1917 bi mu koy sanc itam soxna Roqaya Touré la àndal ku ñu wax sëriñ Amar Amar Ngom ku ñu wax ab Ablaye Fall ñoom ñetti ñett ñu ñoo ànd ñëw fii sëñ Mudu Maamun sanc dëkk bi toog fi ab diir sëñ Tuubaa woowaat ko mu dem Njaareem bàyyi fii soxna Roqaya Touré fekk yor na ku ñuy wax soxna Assu Mbàkke bokk ak moom lépp bokk ci njabootuk sëñ Momar Jaara soxna Astu Mbàkke moom la bàyyi njaareem faf soxna Roqay Touré andi ko Daaru Salaam biñ fi amee 17 1918 la fi sëñ moo Modou Roqaya ganee àdduna wax ne mooy ñetteel ma bi ganee àdduna ci Daaru Salaam kan moo njëkk a ganee àdduna Daaru Salaam 1886 wala 87 ci la sëñ Modou Moustapha ganee àdduna Daaru Salaam 1888 sëñ Fallou ganee fi àdduna 1888 ba 1918 la fi sëñ Modou Rokhaya ganee waat àdduna moo tax mu ne maay ñetteel yi ko ganee àdduna Daaru Salaam sëñ Modou Moustapha fi njëkkee ganee àdduna sëñ Fallou ca topp sëñ Modou Rokhaya maa ca topp loolu ak jagle la ndax euh, yàlla bu bëggee préparer nit ki dana ko feeñal ci environnement bi muy ganee àdduna dana ko feeñal itam ci waxtu waxtu wi muy ganee àdduna dana ko feeñal itam nag ci way jur yi nga xam ne ñoo ko andi àdduna yooyu yëpp incha allah dana feeñ ci biir waxtaan wi Serigne Modou Rokhaya gane àdduna 1918 fii ci Daaru Salaam tubaa Touba duppee ko mu Mouhamadul Mokhtar moom soxna Xarit Penda Fall ak Seexuna Ahmadul Xadim bi nga xamee ne yàlla dogal na mu mat a dal jàng ñu daal di koy yëgal Serigne Modou Mamoun wax ko sëriñ Touba ne ko Mouhamad day mat naa dal jàng mu ne ko na dem ci sëñ daam Abdourahman Lo mu dalee fa alquranul karim mu dem ci sëñ daam Abdourahman Lo nee na gone gii de xanaa moo indiwaale sama ngërëmul yàlla ci al ci njàngaleem alxuraan ñu ne ko lu tax mu ne maamam Cheikh Sidil Muxtaar man la ko baayam maamam sëñ Mbàkke Mor Anta Sali joxoon ma àggale baayam sëriñ Muudu Maamun man la ko Cheikh sëriñ Tubaa joxoon ma jàngal ko alxuraan tey jii moom mi mu ñëw di sët ba kon ku jàngal maam jàngal baay bi jàngal sët ba dama yaakaar ne daa indaale sama ngërëmul yàlla daal di koy dalalal jàng alxuraan daal di koy boole ku ni wax sëriñ ñang mu di ab siñe siñe moo ko doon jàngal alxuraan mu nekkoon jëwriñu daaraam mu dale fa jàng alxuraan ba sun borom dogal al alliwaam war a toll ci àgg waajuram daal di kon ne ginnaaw alxuraan ji mokk na da ngaa war a ñëw jàngi xam-xam daal di koy jël yóbbu ko Madina Touré boole ko ak sëriñ Mor Faati Touré sëriñ Modou nekk Madina ture waaye di jóge Madina Touré di ñëw Gédé ci sëriñ bu Bousso moom sëriñ bu Bousso di fa jàng xam-xam. di boole di jóge maddina di ñëw Touba jàng xam-xam bu noppee delluwaat Madina Touré di fa waat foofu la nekk di fa jàng di jàng ba xam-xamam toll ci bënn mu jekku jekku lool lim doon jàng ci la ko bàyyam na ko kaay nag ginnaaw njàng mi bënn na te xam nga li nga war a xam ci sa faratas ak sa diine dangay ngay ñëw nag wuti li nga xamante ne bii mooy ngërëmul yàlla ndax man kat sa baay sa maam bi ma tolloo fii def maa teg ci loxol sëriñ Touba. ginnaaw sëñ tubaa nekku fi nag dama lay teg ci loxol ki fi nekkal sëñ tubaa mu di cheikh mahamadul moustapha mu fab sëriñ mouhamadou roqee jox ko cheikh mahamadul moustapha cheikh mahamadou moustapha di ko xool gëstu ko ci aliwal alliwal alquraanam manin wi jéggi dayo làmmiñ wi nag dafa xawoon a xaw a mel ne lu xaw a tax mu xool xam-xamam mu wóor ko ne kii bënn na ci xam-xam su ci continuer dana doon mufti mu ne ko yow sam njàng ëpp naa dagg kaay dem gànnaar ci la ko boole ak sëriñ Ahmad Tindodi ak sëriñ Aliou ak ñam ko bokkal ñu ànd dem gànnaar ñu def ñaari at gànnaar euh, mu mu mu bënn fa nag doon koo xam ne li mu jàng lépp da koo mokkal. sëñ Modou daawut jàng bu soxlaa ne demal yët ma téere sàngam déedéet li mu jàng da koo mokkal ba lépp lu mu bëgg a wax rek day tari day tari bayit ba noonu ne mu dégg woon alxuraan ni la dégg woon euh, langu arab bi ni la dégg jekkoo woon itam lépp loo xamante ne bii masala la mu ne ci biir diine. bi yàlla dogalee nag seen alliwa yi xam-xam war a mat ci la leen sëñ Mourou Moustapha delloo siwaat nag bi leen sëñ Mourou Moustapha andee nag ganale leen seen ngan gu xumb gu googu ba mu toll ci weer ci la dégg nag nee na sëñ Mourou Moustapha faral di wax naan innal abraara la fi naxiimin nee na ma dégg muy baamu bayit boobu di baaye baamu aaya boobu innal abraara la fi naxiimin nee na ma am ku ma waxal ci mag ñi ne ko waa damaa gis day sëñ Mourou Moustapha innal abraara la fi naxiimin li mu koy wax bu mbooloo mi baree daa bari mu ne ko sa baay de sañcam bee di daaru nahim lay xamal na labraar yaa fa jëm nee na ci laa ñëwee ci sëñ Modou Moustapha nag ne ko nag man de bàyyi damaa bëggoon dem ci daaray tarbiya mu ne Modou tarbiya daa métti te yow dama laa yërëm te dangaa bari fitna mu ne ko waaye am na njariñ mu ne ko léppi njariñul yoon wi mi ngi ci daaray tarbiya mu ne ko man njariña ma fi indi kon nañ ma yóbbu ci daaray tarbiya mu yóbbu ko eh, daaru naim mu am fa ab diir mu jëlee ko fa ngir ak fam ak njàmbaaram moo xam ne kii liggéey bii muy kii liggéey dëgg góor dëgg la mu yóbbu ko Taïf nee na ma nekk ci diggante baydaa ak Taïf ak Daaru Naim di ko baagante ba sëñ Moudou Moussa xam ne jàmbaare ngi nii nee na jëlee naa ci liggéey boobu tooy joo xam ne sëñ Moudou Moussa soxna njaxat si la la woo mu ñëw mu ne ko Mamadou mii bu ma ci yàlla gàcceel nga xam ne nee na da daan boole am wen ak loora ak xewar di ko togg di ma ko jox ci la xamee ne nag ne kii comme jàmbaar la boroomu fit la te lépp lu góor di def fas na ko yéene def mu ne kii daal xel mi ko yàlla jox ak sell gi ko yàlla jox ak dëggu gi ko yàlla jox mën naa ko récupérer dend ak moom ci la jëlee nag sëñ moom sëñ Modou Moustapha sëñ Modou Roqee taf ko mu nekk loxol di joram fu jëm ñu ànd daawuñ tàggoo guddi daawuñ tàggoo bëccëg bu sëñ Modou Moustapha di tëdd ci nee bi sëñ Modou Roqee yaa ngi tëdd ci biti bu fajaree nee na boyal naa fourne bi teg ci baraada bi su ma noppee génn naa piliyaan bi génn tabulier bi tegal ko ci kaamilu alxuraan bi fab ful ko ba mu dend ak moom ma ubbi ko ba ci paas bi mu war a jàng ma dem di boyal sama fourne bu jullee fajar ñëw toog ci piliyaanam may tàngal ataaya muy jàng alxuraan ba mu jàng xasa xasaayidu seexuna ahmadul xadimi doon ko gëm lool sëñ Mourou Moustapha liggéeyal ko nag liggéey boo xamante ne di liggéeyub caaxaan ba dégg ñaari yoon jërëjëfi sëñ Mourou Moustapha ci gàttal tarbiyewu na ko ba sëñ Mourou Moustapha wàcce ko mu ñëw Daaru amu fi weer sëñ Mourou Moustapha waat ko. di ko tarbiya ba 1944 1944 nag ci la sëñ Modou Moustapha dajale mag ñi na leen maa bëgg nag ngeen ñëw demal ma Daaru Salaam su ngeen demee ngeen waxal ma sëñ Modou Mamoun na ko kii de moom jaanam wàcc na ci moom ndax moo ko jur ci farata ak sunna ma bokk koog moom nag ci leen yàlla boole ci bokk waaye xam na ne maa fi nekkal sëñ Touba mu fab ko jox ma ko te moo di taawam ne ko kon moom jaanam wàcc na ci daadi wax na ko moom mii mu fi andi jaanam wàcc na ndax xam na li taxoon baayam andi ko fi mu sol daal di wut loolu ba am na ko daal wax na nag waaye nag yéen ñaar de seen ñaari jaan du wàcc jaani Mudu Moustapha di des daadi wax na mayit sama jaan wàcc na ci moom la sëñ Tuubaa doon def ca mag ña àndoon ak moom ca gànnaar ak xumaag def naa ko ci moom mii daal di wax na nag sama njëmbata ngoog daal koy joxoñ daal di mag ñi bu ngeen demee leen baayam sama njëmbata ngoog ku suuxat mu jebbi ku suuxatul mu jebbi dana neex lool nag ci ku ko suuxat bu jebbee nga mën a toog ca ron ker ga bu ab doom waddee nga mën koo lekk ca kenn du la xaaj waaye boo ko suuxatul su jebbee boo toogee ca ker ga gàcce ngay toogaale te moom sama daal di wax ne man yàlla rus na ma man Modou saa yàlla rus na ma bu ma sampoon bantub noor it mu jebbi sëñ Modou Mamoune na ko kon yow toog ci kër gi waru la bokk ci mbooloo mi waru la demal liggéeyi te saa yu liggéey bi noppee nga andi ko ci la sëñ Modou nag tërale ak listixaar wallaahi nee na listixaar gi bi ma koy tëral digg bëccëg la waaye nee na njolloor lu tàng jër la ma listixaar gi wan penku bi ma jóg solu ma samay dàll añu ma nee na bi ma jógee di dem bay tolloog fu ñuy wax ndokk nee na ci la ci laa yeme ci sëñ ndokk mu ne ma Moodu xanaa da jëm ci sa tool yi bàyyi nee na ma ne ko fu mu ma toll fii mu ne ma mi ngi nii ci wetuk Saalum gi nee na ma dëpp bi ma dëppee bay agsi euh, nil bi nee na boobu daa fekk jant bi waaj so ma seen menn Moodu ngoom laa seen ci tool yi mel na moom képp ndaka mu ma seen na ma xanaa kii du sëñ Moodu ma ne ko ah kay mu ne ma kañ nga ñibbisi ma ne ko ñibbisi naa ca fan yële mu ne ma looy dox nii nag ma ne ko fii laa jëm si damaa bëgg fu ma liggéeyale borom gaawaan nee na mu ne ma fii de moom doo fi fanaan ndax genn tagar gi fi am nee na ma tagar gi diggante tànk bi ak fi ngay tëdd matut cinq vingt cinq centimètres daanaka boo ci tëddee yaa ko tëdd ci suufa ci ci ay banti ngeer ak yooyu saleen la boole teg ci ab der mu ne ma lii laa am ci lu may fanaan mu ne ko lii ngay fanaan ci laay fanaan demal wutali ma ataaya ci dëkkub sëñ Cheikh Fatta ko Jóob bii muy muy muy Daaru Wahab nee na yëkkati juróomi dërëm jox ko bi mu demee di wuti ataaya jëndali ma ataaya ak suukar bi mu daataaka dëpp fekk na ma rey fa fanweeri jaan ak ñett kon dëkk bu bari ay jaan la woon te li ngay tëdd noonu lay tool foofee la nekk ak sëñ Modou Ngom fa fukki fan ak juróom yoo xam ne ñoom ñaar ñoo bokk nekk ci àll boobu dara du leen di wettali amut nee na boobu maa ngi seet fu may bay ak bu waxtu jotee nu may bayee bi waxtu daataal ma ne ko nag maa ngi dem lijjanti ji aw jiwu aku fas dem lijjanti yàlla dogal ba mu demee teel a amu fas aw wajan buñ tuddee ndéexe ndéexe nee na ma fas lay doon woo xamante ni day gàtt te doo nga xam daanaka fas sëriñ la daan doon mu ne ma ma am am ndéexe yónnee ko Modou Ngom na ko nañ ma ko teel maa ngi dem wuti aw jiw bi mu demee di wuti aw jiwu laata muy ñëw fekk na sëñ Modou Mamoun ñëw nel bi daan na Modou ma fas wi ku ko fi indi mu ne ko fas wi de sëñ Modou ko doon lijjante bi am na ko mu ne ko wax na waaye man doon nañ ma aw fas te ma ko ma aw ma ma daal di jël fas wa maye ko. aw jiwoom ba aw jiwoom àgg nag mu ñëw nag andaale aw jiwoom dikk bàyyi Modou Ngom na ko fas sëñ Modou Mamoun maye na ko. mu ne kon naa jox sama jiwu waa daara ji ba noppi di xëy di dem ci tool bu mag bi su ngoonee ñu may ma ngont noonu la njëkk a newetoo bu joxee aw jiwam daara ji ñu jiyal ko ko muy xëy ci tool bu mag bi bu ngoonee mu àndandoog ñoom dem ci seen ci tool mu mel fan mel fan a jëwriñ bu ab liggéeyam àggee mu boole koog liggéeyub tool bu mag ba daal di ne sëñ Muudu Maamun jalub daara jaa ngi nii samab jala ngi nii addiyee sëñ gaawaan la loolu la nekkee ak sëñ Muudu Maamun nekk nel bi ba yàlla dogal nag mu am fa at wala ñaari at ci la jógee nag dem ci ku ne wax Cheikh Mahamadul Basir ibnu Cheikh Ahmadul Xadim di waajuru Cheikh Mahamadul Muntaxa mi doonoon waajuram doonoon xaritam mu dem seeti sëñ Basiru sëñ Basiru na ko foo nekk léegi Moodu mu ne ko man de maa ngi ca tool ya tawfeex eh, nil bi mu ne ko xanaa mooy sa tool yi bàyyi yi nekk ci wetu am Ahmed ñëwel mu ne ko waaw mu ne ko mbaa am nga bag ay matériel mu ne ko amoon naaw fas de daan ci ji sëñ Moodu Maamun da koo maye te man lu ma bay bu nawet bi jeexee dama ko koy jox. mu ne ko danaa la jàppale ci matériel mu ne ko na doon ma bopp baatin waaye du bu mu doon bopp bopp abab alal man lu ma sëñ Tuubaa di jàppalee na doon baatin waaye bu mu doon alal nee na sëñ Mourou Moussa sëñ Basiru ci la yéemoo mu ne ko leen daala ma fi taxoon a ñëw mu ne mu ne ko dëkk dëkk ba daa bari ay jaan te bëgguma jaan màtt fa nit nee na sëñ Basiru ne ko danaa fa ñëw danaa fa ñëw nee na damaa toog benn bis ba mu yàgg rek ma seen oto bi ndakate sëñ Basiru ñëw man ak Modou Ngom ak mbay saar donga buñ ko joxoon bu mu yàggal nee na ñoo fa nekk nee na eh, sëñ Basiiru agsi ñu nekkee ne ma Moodu da ñëw naa na ma na ma demal tibb suuf jox ma ma tibb suuf jox ko maa ngi moom ñu ànd dem ba ca kàdd ga ca penku ba sëñ Basiiru toog fa wàqel boppam taatu kàdd ga di ñaan di ca tifli di ñaan di ca tifli ba fab suuf sa sotti ko ca sotti cam ndox maase la ko na ma jànd xanaa bu judduwaale wuti bëñ du màtt kenn mu ne ko déedéet mun ne ko def naa ko noonu jàndu fi màtt daa di ko ne waaye nag bis naka tey tuddee naa ko tawfeex tudde naa ko tawfeex sëriñ Basiiru moo ko tudde tawfeex ci la turu nil bi wu jóg sëñ Modou Noga fii nga ko def dey yàlla daa dogal ne daa bokk gut ci suuf si waaye bis naka tey dañaa fexe mu doon ci suuf si ci la sëñ Modou roqee nag demee ca ñu pël bu ñu wax moo ko saw kooku moo moo tayle woon sëñ Modou maa am suuf sa ci la sëñ Modou lijjanti ba am suufus boppam nag mu dugg ci biir suufus tawfeex mu nekk foofu nag dafa liggéeyal yàlla moom sëñ Modou Rokhaya di nitu yàlla koo xamante ne bii lii ma la waxoon ci njalbeen gi nee na li ma mus a mën a dégg ci daara ji mooy fas sàngam kenn du ko war nee na fas wu ñuy tàggat wu ne maa ko daan jël waaye nee na wenn fas moo mas am 24 heures te mokkut ne nëb dër amut. bu takkee bu fabee bu fabee laytaay yi ba teg ci kaw fas wi ba sol li mu war a sol euh, sof tànk ya roof ca déggal ya doo bëgg lu weesu jóg topp ci moom ndax danga nga naan gawar gawar bi dàq war ci àdduna mi ngi nii aw fas mosu koo jaaxal waaye bu waree fas nag ba fab fetalu ñaari ngimiñ ba ràngoo ko nag nga jiitu ci kanamam nag di bàcc loo naaw sa dana daanu nee na yàlla dogal na mosuma diir lu repput lu ma diir daa repp moo tax maa la bu doon fetalkat ab daan na lay doon aw fitam ak njàmbaaram neexu tëddee ko musta dellu ginnaaw ci lu mu mën a doon waaye masa fees dell na nag ak yërmande ci doomu aadama yi waaye nag lépp nag ci xet ma jox ko sëñ Tuba foofu la nekk ak sëñ Modou Mamoun ci ci tawfeex ba ni mu sancee dëkk bu ñuy wax daaru Nduuma ginnaaw bu mu sancee daaru Maraan ba noppi ci 1960 wala 63 euh, ñu jox ko foore boobu mu amoon xaritam boo xam ne doomi ndeyam la ñu bokk pas-pas ci sëñ Tuubaa mu di sëriñ Basiiru Gay wóor koñ moo ko goral àll boobu fekk na boobu sëñ Basiiru ne ci àll boobu mu sanc fu ñuy wax nduuma nduuma nekk ci diggante yooyu di ko liggéey ba am benn iwo euh, foore bu ñuy wax Sidibé booba moo yor foore yi di ko daggale moom la bind lettre ñaan ko foore bi yabal foore ba nekk yabal fekk booba ñu koy may kilifa yi mu ñëw na sëñ Modou Mamoun foore bi yabal de ñu ngi koy dagg di ko maye ndax doo ci bind demande sëñ Modou Mamoune ki ko yor dañoo jubawut su ma ko ñaanee du ma may moom sëñ doo xëy mu bind ci turu boppam ñaan ca foore ba ñu may ko ko mu ñëw fob këyit wa jox sëñ Modou Mamoune na ko may nañ ma yebal loolu sëñ Modou Mamoune yebal fa sëriñ Amidun loolu mooy Daaru Salaam yebal ci njàmbaaram mu continuer ci loolu mu sa dellu ginnaaw ci dara ci luy liggéey ba yàlla dogalee Touba gii sëñ Fallou fob kër Baye Mbay Ndaw gii nga xam ne moom lañ dëkk tey sëñ Fallou jox ko sëñ Modou Mamoune na ko mooy sëb cër ci Daaru Salaam fekkoon na booba sëñ euh, sëñ Modou Mamoun ña ngi ko daggal ca ginnaaw ca wetu gaar bu mag pàkk yañ ko fa daggaloon yenn ya jox alaaji Ibrahima ja yenn ya mu jox ko euh, sëñ Mun Njaay Jóob ñoom ñu dëkkee foofa sëñ Modou Mamoun na leen man damay jàkkaarloog jumaa ji rek baa ma toog Daaru Salaam ci la ko sëñ Fall nag joxe kër Baay Mbay Ndaw gii nee na biñ ko joxee sëñ Modou Mamoun sëñ Modou Mamoun laaj ba xam yaata kër a dox digganteem ak jumaa ji ñu ne ko yow daal sëñ Fallou képp dox sa digganteeg jumaa ji sëñ Modou Mamoune bàyyi fa pàkk ba sëñ Modou Rokhaya nee na ci laa demee Ndakaaru ci kër nijaayam ma Demba Touré nee na ànd ak moom dem ci directeur u Petersen ñu di ko wax tubaab bu ñuy wax Laloy nee na ma wax moom ne ko man de damaa am kër gu ma bëgg a defar ca Touba maa soxla ay seng ak ay bant ak ay laat ak pont ak find fer ak sumbul ak suukar. nee na mu ne ma ñaata nga soxla ci seng ma ne ko 1000 tonnes mu ne ma ay laat loo ci soxee ma ne ko 80 paquet laat 4x4 mu ne ma loo soxla ci pont ma ne ko 500 kilos tañ jaxase ko mun ne ma loo soxla ci findifeer ma ne ko 200 kilos mu ne ma loo soxla ci sumbul ma ne ko 5 tonnes mu ne ma loo soxla ci suukar ma ne ko une tonne nee na secrétaire bi dafa toog ba mu yàgg mu làkk ko ne ko xanaa kii daa dof mu li ma yëg rek da koo pépputu rek na ko Don Luisa nee na baat boobu rek la ko wax ma xam ne man danaa jot ci li ma Don Luisa mu defal ko signature mu jox ko bagage yooyu sëñ Modou indi ko defar kër sëñ Modou Mamoun gii nga xam ne moom lañ dëkkee li tax ma andi xisa boobu mooy la ko ci sëñ Fallou fàggul kër gi bi mu ko defaree mu di ay seng mu rafet ko ba mu rafet lool mu defar fi sëngalub ñaari néeg ngir sëñ Modou Mamoun defar beneen sëngalub ñaari néeg ngir alaaj sëñ Tàkkook ñamee àndal defal sëngalub juróomi néeg ngir ay sëñ Moustapha Caytu sëñ Saam sëñ Daam def mbaarum seng mu mag ci digg kër gi daal di nag jóge nag ñëw Daaru Salaam ànd ak Baye Seexu na ko waxal ma sëñ Mudu Maamun na ko kër borom gaawaan gan doon liggéey ca Touba noppi na. nee na bi ma xëysee li nga xam ci ak njàmbaaram ak murit saadi xam ak bëgg lu baaxam nee na damaa dajale sumbul boobu dama dama koo jaay loolu laa ci ginnaaw bu ma defee samay fere ba dama ko jaay am fukki junni. nee na ma ñëw ci sëñ Modou Mamoun nag di ko jox di ko nuyu si bi ma ko jubee mu maa ngi dégg muy wax ca kaw bi ma nee salaamaaleykum moo xam ne man a mu fab wantaa gi teg ci jëm mel na kuy nelaw ah nelaw yi gaaw na di nee na ma ñëw nuyoo ñu ne ñu ñu may wax naa ma defal naa wan na ma sëñ bi day waaye neen maa gën a xam ne nelawut man la ñuy nelaw nelaw nee na ma daal di yëkk làmb sama addiye yëkkati ngegenaay lim tëdd ma di ko ci roof nee na mu dóor ma wantaay gi na ma mag dana tëdd nga yëkkati boppam ne nee na mën a ceel nee na suti bàyyi seexu na asalaamaaleykum nee na mu ne teg get wantaay gi jóg toog ne waaleykum salaam kooku seexu yow de fan yii yëpp kenn da laa gisut nee na ma kii di nelawam yi jege naag yeewu tegi nee na mu ne ko mu ne ko waaw nguur soosu den ak yow de moo doon liggéeyal borom gaawaan kër ca Touba kër ga noppi mu bokk ko léemul nee na sëñ Mudu Maam daal di sol daal di daal di ma kër mu nekk maa koy léemu nee na li nga defoon ci ron gegenaay lu mu ma ne ko sama addiya nee na mu génne ko bëgg maa weer ci mbooloo mi xam naa tax mu a benn ñaar ba mu xamee ne këyit yu bari la nag ma dégg maa ñetti ñeent di ko déy ba mu yàgg mu lam ko def ci poosam ma xam ne googu googu njafal jàpp na. nee na mu ne waaw sa baay yi nga xam ne ba nga demee ba tey mm, ñoo la fi nekkaloon loo leen di jox muy ay baay Bakar Mbay baay Yéere ak baay Seexoo ak ñoom ñebe nee na ma génne ñaari junni nee na mu ne ma an eh, sa oto nee na ma ko man ka sama oto daa bokk ci oto yu tuuti yu gàtt yi nee na boobu 404 la am mu ne ma oto bu mu mënta dem tubaa amut daal di ma ne arrière ko nee ma arrière mu dugg bàyyi seexu dugg bàyyi bàyyi bàyyi seex jaxate dugg mu ne ma taalal ñu dem. ñu taal bi ñuy tolloog fii kër Sëñ Abdou Fatah gi ne nee na mu jàkkaarloog seng yi da ak seeguñ mu ne kër gee da xaw ma ku ko moom ci tubaa waaye gañe na. mu ne alhamdulilah rabbil alamin bi mu duggee ma ubbil ko néeg yi ba mu toog ba toog ci néegam nag ma ubbi deux battant bi mu jàkkaarloog. xubbab sëñ Tuubaa bi nee na man foofu rek laa ko doon fiire nee na bi mu jàkkaarloo xubbab sëñ Tuubaa bi ne lii bërëbu sëñ Tuubaa ba ma ne ko ah kay mu ne fi bi boo demee nga ne alsaan kama na ma andili bagage ba mu waxee walise ba ne ma na ma àndaaleel nag paña bu xonq ba daa ne si fini ndax mooy coffre-fort ba kooku moom fu mu dem fa noor nee na guddig màggalu Tuubaa ci la sëriñ Fallu yabal ndaw mu ñëw woosi ma ma ñëw fekk ko mu teg ab tabulier teg ci cere ju am aw sëb ak ndawal yor ak satalaam di ca sif akub làmp di nit ne mu ñëw mu ne tay làmp bi kooku yowaa ah? ma ne ko waaw mu ne ma xool ubbil fee ne tay làmp bi mu ne ma loolu soos la ubbil fee loolu ñamu Tuubaa la ubbil fii macaron la seetal yi boo ci bëgg ma ne ko yee moom bëgguma ci benn xaas boo bëgg nag ma ne ko bii nga sukk mu ne mun ak a muus waaw ah, di cay sif sif satala ga kobos ca sëm ña boole ca ndawal ga dankal ko boppam ba mu nekk kol nee na mu ne ma ŋaal ma nga mu sexal ma ko na ma Daaru Salaam gépp a ngoog baat boobu rek ma ci andi woon loolu Cheikh Mahmadul Fadal la ko wax. liggéey boobu la continuer di liggéeyal sëñ Moudou Mamoun ba le 26 septembre 1969 sëñ Moudou Mamoun dem àjjana mu xëy toog nag di eh, sëñ Moudou Mamoun. dajale ñi mbokkal sëñ Modou Mamoun def leen na jëmi boppam mag ñi nga xam ne ñoo doon àndoon ak borom gaawaan mu def leen ay borom gaawaan def leen ay sëñ Modou koo ci seen rek nijaay la koy wooye ngir leen wor ma moo tax doomi kër sëñ kër sëñ gaawaan ñi ko seqoon ñëpp ay nijaayi sëñ ga sëñ sëñ Modou lañu woon nijaay sëñ Jeng nijaay Bakar Mbay nijaay Cheikh Jaxate nijaay Youssouf daawu ci wax kenn lu nijaay lu ko waral mooy sëñ Makka Touré ma bokk ak soxna Roqoy Touré ndey ak baay ca bokk na ñoom ne ci daara ji mu leen di xoolee nijaayam di jàmbaar joo xam ne nag ànd ak jàmbaar ndax yàlla mooy seet kenn ku ne booy ñëw booy ñëw jamono liggéey bi mu la bëggee loo yow miy jëwriñ ji surga yam lay booleel. sëñ Abdou Lahad Daxe toog di sëñ Touba 1968 1969 sëñ sëñ Modou Roxee toog di sëñ Modou Mamoun sëñ mu boole leen ab liggéey. sëñ Modou du dellu ginnaaw ci sëñ moom du arrière lim njëkk defal sëñ Modou Mamoun mooy armée li Daaru Salaam yii nga xam ne booba daf fekk moom lañ njëkk liggéeyal sëñ Modou en 1971 Fabs Alaaji Sëriñ ja def ko muy jëw jëwriñu liggéey bi booba sëñ Mamoun fer yombut gis nga passoire yi ñuy passoire moom lañ daan jënd ci seko yi moom lañ daan jënd dagg weñ ya weñ yooyu lañ daan samp mu nekk poto yi. mu liggéey ko ba lépp sotti mu toog nag ci daaru salaam fas yéene lépp lu fi sëñ Mudu Maamun defoon mu def ko ñaar njabootu boroom gaawaan gi muy seen jëwriñ foofu alaaj sëñ tàkko def ko muy sëñ gaawaan lépp lu alaaj sëñ tàkko mas a bëgg bu tàbbee ci nopp sëñ Mudu Roqaya defee na ko nam ko bëggee alaaj sëñ tàkko yi def ko mu di taawam bëggal ko boppam lool xajale kenn seen diggante ñoom ñaar buy ñëw daaru salaam daan ko Mudu xoola maa ngi ne nii du ma def du ma wax loo def rek ànd naa ci yow sëñ Modou it fas yéene lu mu def rek sagob alaaj sëñ Tàkko lay doon ndamul alaaj sëñ Tàkko lay doon mu ànd ak moom ci liggéey boobu moom alaaj sëñ Tàkko ba ni sëñ Modou yeese la waate barabu boroom gaawaan bii fekk na booba euh, barab bi sëñ Touba jëkk am ci àdduna ci dëkk bu moom muy jàkka mu nekk Daaru Salaam jàkkay Daaru Salaam ji bi sëñ Touba sañce dëkk bi tisbaar gi mu ko sañce rek la wut ay bant samp ko fa woo sama maam Modou Matar mbay mu ñëw mu ne ko Modou Matar demal nodd foofee Modou Matar mbay moo fa njëkk nodd sëñ Touba jiite fa tisbaar wax nañ ne bi tàkkusaan si ñëwee sëñ Touba noddal boppam na Modou Matar Mbaye demal jiite Modou Matar Mbaye jiite tàkkusaan timis jot sëñ Touba ne Modou Matar mbay demal nodd mu nodd sëñ tubaa jiite gee jot sëñ Touba nodd na Modou Matar Mbaye jiiteel gee mu jiite fajar jot mu ne ko Modou Matar seen jumaa ngoog kon jullikaay bi sëñ Touba njëkk am ci dëkk bu moomal boppam Daaru Salaam la nekk dëkk bi sëñ Touba njëkk amal boppam bu mu moom di fa jaamu yàlla Daaru Salaam la nekk njabootu sëñ Touba gi njëkk feeñ jamono wuutu sëñ Touba Daaru Salaam lañ gënee àdduna Daaru Salaam gi ci la sëñ Touba gisee Touba bi muy gis Touba it jagleeg sëñ Modou Rokhaya ci dëkk bi mu feeñee jamono rek laa lay wax fi la Cheikh Ibra Fall amee ngërëmul yàlla sëñ Touba it fii la toog di xëy suba di génn di néewaat dem am juróom-ñaari fan gisatuñ ko juróom-ñaari fan teguñu ko bët mu ànd ak juróom juróom-ñaari nit juróom-benn ak moom ñuy juróom-ñaar sëñ Tuubaa bi mu àggee ci dëkk bii mu jëmoon muy Tuubaa ba mu gisee barab ba dafa wut làkkum ngeer làkkal ko boppam moo ko gajj làkkal ko boppam ba mu àgg ba ba ba làkk bi dënn nga xam ne bu duggee ci biir kenn du ko gis mu ne ca biir bu liggéeyee ba waxtu si kar jot foofu lay toog di yëkkati baatub laa ilaaha illallah juróom-benn yooyu ne ci ginnaawam di ko aw. ba muy juróom ñaari fan gisuñu sëñ Touba mag ñi dem ci sëñ Mor Jaara wax ko ko na ko sëñ Touba réer na te ci àll bi mu réer wóor te ñam àndaloon kenn del si wu ci mu woo sëñ bu soobee ñu ànd di topp di wër di ànd di wër di ànd di wër ba gis boobu ja moomu ñu wax mu leen di laaj ñu naan ko léeg-léeg bu ñu xëyee danañ ko séen ci garab sàngam danañ ko séen ci garab sàngam muy wër ba fekkal boppam sëñ Touba fii mu nekk tey jii sëñ Touba ne ci biir làkkum ger ba sëñ Mor Jaara daal di ko ne bi kenn du ko bett nañ nuyoo ñu yëglu asalaamaaleykum sëriñ bi ne ci biir ne waaleykum salaam kooku sëñ Mamar mu ne ko waaw mu ne ko xanaa da ngeen a jaaxle ci noonu mun ne ko waaw Mbàkke amuk jaaxle ci yow rek dañu yëkkati mun ne fii laa doon wër ko ne Mamar mu ne ko Mbàkke mu ne ko baraba ngi nii boo xam ne nitu yàlla ku ñëw jamono moom nga doon wër am na ñu ñëw ba dem nag ci gisuñu ko am ñu ko gis ca barab bi bëggu leen waaye ku am ngërëmul yàlla rek barab bii nga doon wër am nañu ñu ko gis te barab bi bëggu leen am ñoo xam ne wër nañ ko ba dem te gisuñu ko man nag sun borom dimbale na ma gis naa barab bi barab bi bëggal ma boppam jox ma boppam daal ko ne fii mooy Touba daal ko des na diir bu gàtt lu waay gën bëgg boo ko wut si wut Touba doo ko am des na diir bu gàtt fépp dana tàkk ba mu des Touba mooy rawukaay bi daal ko Momar mu ne ko Mbàkke mu ne ko dëkk bi ak fi yàlla faye jaam ñi dugg xaju fi war xaju fi dugg xaju fi war xaju fi siwaat nag Daaru Salaam bi mu ñëwaatee Daaru Salaam nag la jël ay bagaasam rafaatale maam Cheikh Anta dëkk bi Touba googu mu demoon nag ci bokk bokk na ci moo Serigne Modou Rokhaya maamam moo fa njëkk a faatoo ci àdduna muy soxna soxna Buri moo fa njëkk a génn àdduna ba muy génn àdduna la sëñ Modou Mamoun gane àdduna booba Touba amaguti armeel te sëñ Touba du def ci làmbatu du caagee nag ku faatu rek fa jot denc la fa déedéet suñu borom naan ko dencal ko bërëb sàngam Touba amaguti armeel mu jël leen ko yóbbul ma ko mbusoobe ñoo ni ko fii Mbàkke denc ko fi ka toppaat mooy sëñ Abdou Loum sëñ Touba amagul ndigalul denc Touba mun a yóbbu leen ma ko Daaru Salaam ka ca toppaat mooy soxna Aminta Lo ci la sëñ Touba ne lañ ma mayoon Daaru Salaam may nañ ma ko Touba dencal leen ma ko ci ci taatu ci taatu garab ga ci la armée li Touba sogo sosoo sëñ Modou Rokhaya nag di jàmbaar yoo xam ne liggéey bii nga xam ne moom la ñu dëgmal ginnaaw bu mu defalee liggéeyalee sëñ Modou liggéey bii mu ko liggéeyal defaraatal ko këram gii nattaat kër daaru salaam nattaat daaru salaam ko defaraat kër borom gaawaan gii bam bam dëppoog borom gaawaan mu woote waat màggalu daaru salaam gii ba ñëpp àndandoo yokkal ko boppam mu ànd ak sëñ Abdou Lahad liggéeyal sëñ Abdou Lahad kër ga ca biir këram bâtiment ba ci biir këram wuy ji Touba Belal ca njëbatum garab ma sëñ Abdoulaye mujj koo jox ndigal ci bâtiment bi nekk ci kër sëñ Touba gi mu liggéey ko ci lan sëñ Abdoulaye wàcceeb liggéey mu ànd ak sëriñ Saliou wuy ji xel koom ay yoon sëñ Abdoulaye 1983 fekk booba barab bii di jullikaayub sëñ gaawaan bii di jullikaayub sëñ Touba bi moom la sëñ Modou maam sëñ Modou roqee ne jullikaay bii de fas naa ko yéenee defar ba mel ne jullikaay ya nekk madinatul munawara ak makkatal mukarama da ko wax am mel mag naa ko sëñ bi jullikaay yooyu sone te nga mel ne jullikaayu Touba mu ne ko Touba du morom bañ ko wutal ndend ci nga xam ne kenn yoru ko jumaay Touba la wormaal mu ne Touba du morom bañ di ko wutal ndend danaa ko def ba mel ne jullikaay ya nekk madinatul war ak makkatal mukarrama xool nga fi mu ber sëñ Touba Touba du morom bañ ko wutal ndend mu commencé liggéey boobu yàlla dogal mu dem ba war koo tollu ci kuule ko menn mbokk ñëw na ko yow di demoon naa fa léegi nii mu ne ah, yéen de da ngeen maa gën bi daal nax Cheikh Ibra nee na woon sa kilifa boo dëkkee moom bu la soxlawut bul fa dem soo toogee moom bul tàllal say tànk bu la yónnee boo amul bul dëpp soo koy siyaaree it mel na daay gu jaati noor ku dégg sëñ Tuubaa la noor doo fa ba dara ku dégg sëñ Tuubaa daa di mu ne ko lu sëñ Ablaat wax mu ne ko sëñ Ablaat daa am liggéey bu ñu doon waxtaanee mu ne loolu de ku mel ne sëñ Modou ko man ku mel ne sëñ Modou Rokhaya ko man waaye am ko ci nag sëñ Modou xanaa kon day arrêté jumaam ja mu ne ko day tabax jumaa ja mu ne ko ah jumaa ja tegoon nga xeer la ne mu ah loolu la liggéey moog liggéey sëñ Tuubaa bi ñoo yem képp naa ko bàyyi ba mu àggal ma soog ko ma soog ko sosaat leen ndax loolu man la waroon kooku nag sëñ Modou nag lii moo tee nga jot ci ndigal loola. sëñ Modou naa ah, kon de jiiju maa moom kanee na koy àggale waaye doon Modou man de lépp luy tee ma am ndigalul sëñ Touba ma ba loola ca wuti ndigalul sëñ Touba lépp luy tee ma am ndigalul sëñ Touba ma bàyyi loola te te wuti ndigalul sëñ Touba ndax ndigalul sëñ Touba ko gën ci man ci la arrêté liggéey boobu daa ne kon bu dee àggati desu addi yi lay doon daa di woo sëñ Amidun woo sëñ Abdourahman woo sëñ As Gede daa ne sëñ Abdourahman jëlal xalima sëñ As Gede jëlal xalima bindal ma lii ma lay bëgg wax neel ko aju ci kër borom gaawaan te ndamul borom gaawaan di sa ndam le 15 woo naa la Daaru Salaam loo am na ko andi ñu àndandoo dem yët ko sëñ Tuubaa ñun saa yuñ noppee liggéeyal sëñ Tuubaa ñoo mbaam yi ci mbedd mi ñoo yem 15 janvier ñëpp daje fi mu am 3 millions 500 mu yëkkati 300 mille teg ci ne aw say boo ko taxanee ba noppi da ngay wut ak buum takk ko dem leen yët ko sëñ ñu yët ko sëñ Ablaat mu lii buum dakkati yaakaar naa ne sëñ Mudu Maamun fii jamono tool tey jii nga xam ne dégg kër yoonu murit yëpp di yëkkati seen kàddu di woote addiyee Daaru Salaam ji ba ko sëriñ Modou Rokhaya di woote booba kenn ku ko wooteegoon ci yoonu murit amut ndax dañuy wax ne borom xam-xam yi dañuy faral di wax ne ngëneel ñeel na aju sos donte aju roy ja daa gën a rafet le te sëñ Modou Rokhaya initiative u saxalal sëñ Touba at mu jot nga yóbbu ko addiya Cheikh mun Muntaxa moo ñu ko firndeel daa na roy lu baax kat moom man du ma Muntaxa du ko bañ te lii waa Daaru Salaam di def bëgg naa ko ci la yóbboo woon 112 millions ya kon yaakaar naa ne fii ñu toll àgg nañ ci àdduna bépp xam ne ndakate sëñ tubaa bam ñuy booleeg dàll yi bëgg ñu toog ci kër yi taxut ndax sëñ Touba nee na ceex gii ma leen defal ak laxas xay laa ko def ci yéen jox leen ay dàll ba ngeen mën a waaxu waaye bari na ñoo xam ne dañoo sol dàll yi ba àgg ci kër ga toog ndakate li ne ci poche yi sëñ tubaa ko moom dañoo war at mu jot ñu dajale sun lépp dem yët ko sëñ tubaa initiative boobu sëñ Modou Rokhaya indi ana lan nga ma ci mën a indil sëñ Modou Mamoune asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokk yi nuy jàkkaarloo nu ngi leen di nuyu di leen siyaare ginnaaw ban jiitale ci nuyoo bi ak siyaare bi sunu jëwriñ ji toog di maam Cheikh Anta di ko jot li loo nuyoo mu jotool nu ko woy juróom sëñ Ebo Mohamed nuyoo boobu it noo ngi koy sàkku ci moom mu jàllale na ko ba ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mi xam moom a nekkal Cheikhul Khadim ci kaw suuf di ko ñaanal yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te wéral ko te àggale yéeneem te ànd koog moom. sunu jëwriñ jiit lañu sëñ Saali waxan ci moom yàlla nu yàlla dimbali ban mën a dégg loola di ko jëfe te mu yàgg lool ci barke maamam barke baayam barke Cheikh Modou Roxay Mbàkke euh, jërëjëf Galas Euh, sunu xool tooy na wax nga lépp li ñuy wax daal mooy yàlla nu yàlla defal digg ak topp li imaam yi di wax jaxale nii laa wa iyaakum mina lasina yastami'una xawra fa yattabi'una ahsanahu yàlla nu ko yàlla defal euh, wax nga ni nañ fàttaliku jëmm ju baax yàlla moo ko jëkk a digle fa sakkir fa inna sikraa tanfa'ul na fàttaliku jëmu jooju dana waral njariñ ndax faw dinañu ko jéem roy dinañ jëfandikoo la mu doon digle kon loolu dana indi njariñ wax nga ni e, ci tànnif fii la bokk te ku tedd gi waxan na ko ni dañoo daan tànn ci giir giir kinaanta Ismaahil tànnaat ci biir giir googu xureeshin tànnaat ci biir xureeshin bànni aasim mm-hmm. salaahu salaam man nag tànn nañ ma ci biir bànni aasim war fa ana xiyaarun min xiyaarin min xiyaarin mm-hmm. kon sëñ mu roxee ci tànneef yi la bokk mm-hmm. wax nga nit ku jàmbaare la ndax nga tudd nga ñetti dëkk yu mu sanc yu bokkul ak dëkk bi mu nekk doon ko yeesalaat kon kooku jàmbaare te yonte bi salaahu salaam nee na inna laa yuhibbu sujjaaha wala fi xatlil xayaat wax nga ni ku amu fit la it ndax ba ko sëñ Modou Ngom ne rey nañ fi nangami jaan booba bu doon ñeneen ñi paalin yi danañu daw mbaa ñu seeti beneen dëkk wala beneen gox waaye moom ñime wax nga nit lax na ngërëmul sëriñ Mouhamadou Moustapha doomu sëriñ Touba ci ndigalal way juróom waaye wax nga ni laqaat na ngërëmal borom gaawaan ak ak sëñ Modou Mamoun ci bi mu ñëwee sanc ñetti dëkk yooyu ngir fas leen fa yéene liggéeyal kon kooku yàlla na ko yàlla fayal wax nga ni it jënd na aw fas way juram ñëw fa jël fas maye ko waaye kii ko fi wuutu sëriñ bi defal na ko lool moom itam ndax jënd na otoom R18 dawal romb ko gaare ko mu ne ko ku moom bi oto mu ne ko man mu ne ko may naa ko sëriñ Cheikh Dia mu ne ko kon de abal ma ma àggale de àgg kër gi wàcce samay bagaas dem delloo sil ko oto bi kon la sëñ Modou la sëñ Modou moomu defoon way sëñ sëñ Modou roxee sëñ Modou def na ko ko waaye nag sëñ Modou Rokhaya gisu ca wàññeen moom it gisu ci wàññeen te yàlla bu mu ko ci gis nu ngi koy ñaan nag mu yàgg fi lool ba nu ñii lanu sëriñ Saliou waxan nu di ko jëfandikoo ndax dañoo ànd ak moom siyaari ko boobu yaa ngi cewoon ak sëriñ Wàdd bi ñëwee sëriñ siyaari sëriñ Saliou dànd ko fukki mètre toog fële moom ñoom ñaar ñuy wéet di wax di wax di wax ba yàgg mu tàllal loxoom kobos nu nu ñëw sëriñ bi dinu ñaanal sëñ seex mi jël ñaari loxoom teg ko ci woomi sëñ Saliou sëgg sëñ bi tàmbali di ñaan ba yàgg mu dagg ñaan ga daal yëkkati loxo bu tedd ba ni maa ngi leen di xamal ni day jëmu jigéen àndal day sama xol seet na ci moom guy te sëñ Touba sëñ Saliou ba muy wax loolu fa mu nekk moo fi gënub juddu gën fi ay way jur gën fee jekk ci ci ci ci biir réew mi mu nekk kon kooku si booruwuloon kenn waaye dani gërëm naa ko sama xol si dina ci moom guy maa ngi leen di digal yéen ñi ànd ak moom na ngeen sàkku ngërëm moom kon sàkku ngërëm boobu su ngeen ko amee am ngeen sama ngërëm te am ngërëmal sëriñ Touba kat booye boo sax moo waral liggéey bu rëy bii ñu sumb fas ku yéen sàkku ngërëmal sëriñ Touba donga tax kon yàlla na lax ngërëmal sëriñ Cheikh Anta nu ngi koy ñaan it mu yàgg fi te yàlla wéral ko ndax am na communiqué bi ma dégg waa ji bi muy wax ba àgg ci ni ko um nga lambi ndigal man sama yaram dafa daw bu ma la ca des waaye bi mu ne um nga lambi ndigal rek xamatuma la ca topp man man foofa laay sama déglu yem um nga lambi ndigal mm-hmm. ndax ndigal ci la yiw yàlla yépp nekk mm-hmm. ndax sëñ Tuubaa wax na ko ñu mm-hmm. ndigal mooy yoon wi nga xam ne boo ci ne coow doo ko wàcc bu biir àjjana waaye safaan bii it yonent yàlla musal mooy yoon wi nga xam boo ci awee doo ko wàcc ba ca safaan bi kon ginnaaw nag moom um na lam bi ndigal ah nu de noo topp ci ginnaawam di ko tàccule di ko bàkkule di ko ñaanal yàlla na yàgg lool ci dara yi Cheikhul Khadim jotoo dégg kaddu yu am solo yooyu eh, kon xam naa damay bàyyee kàddu yu mujj yi eh, sëriñ Mbakke Madina di caatum Cheikh Mamadou Roqaya waaye di ko topp sëriñ Cheikh Anta eh, moom it mu yëkkati ci ay kàddu su ko defee ñu soog a tëj jataay bi auzu billahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal a cheikh Mouhamadul Muntaxa sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko di ñaanal cheikh abo abo Mouhamad sunu borom moom it yàggal ko fi lool te wéral ko waaye di ñaanal suñu sëriñ suñu xarit suñu lépp muy sëriñ Cheikh Anta mi toog sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba li nga xam ne yéene na ko ci liggéeyal Daaru Salaam yéene ko ci liggéeyal sëñ Modou Rokhaya ak sëñ Gaawaan sunu borom defal ko ci lu kawe njortam ndax ni ma koy faral di waxee rek eh, ñun xëy na xam nañ ci sëñ Modou Rokhaya tuuti waaye nag moom mii lañ gën a xam moom lañ dundal mu doon mag ju baax yoo xam ne. Eh, dama koy faral di wax ne ma nit ku ne bëgg naa am mag ju mel ne moom di ko tiitaroo kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi eh, te te te wéral ko ci barkeb Serigne Touba Cheikh Fallou Cheikh Mamadou Rokhaya di boo ñu ci laajee dinañ ci sawar a wax donte liñ ci xam bëri waaye yontu bi sallallahu alayhi ba ñu laajee sayyidatuna Aïcha radiyallahu anhu ne ko lan mooy jikko yontu sallallahu daf leen wax ne jikko yoon sallallahu alayhi wasallam mooy alxuraan wépp melokaan wu rafet ween gis alxuraan tagg ko ci jikko ju rafet jikko joojee mooy jikko ju yoon saa salaam jikkoo wépp jikko ju sew ju ngeen gis alxuraan ŋàññi ko jikko joojee de mooy jikko ju sori yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye boo ma laajee kan mooy sëñ Modou Rokhaya dama lay la wax ne la ah, melokaanu murit saadix ni ko Sëriñ Tuubaa ba muy ba muy ba muy wax ci xoqa di di tagg murit yi murit nit yàlla yu mag yooyee ba àgg ci ne tuubaa li abdin muridin saadixin lahmu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaat soo ma laajee sëñ Modou Rokhaya foofee laa lay génneel rek ab portalem ne la murid saadix bu mel ni sëñ Tuubaa bëgg kookee mooy sëñ Modou Rokhaya loolu moo taxoon mu jël léppam jox ko sëriñ Tuubaa ba ci àddiyee ji nga xam ne moo ko sos di ci liggéeyal sëriñ Tuubaa nga xam ne moo doonoon ay gëtam yi nga xam ne ci lay xoole sëriñ Tuubaa te dama koy faral di wax léeg-léeg Eh, Cheikh Mouhamadul Moustapha radiyallahu anhu mos naa jël addiya ju toll ci junni ci ay jamono yónnee ko sëriñ Touba lettre ba dama ciy jàng tuuti rek eh, daal di wax ne tubtu ilayka tawbata abdin salimin laa yamliku nafsi darran wala nafxan ne ko ne maa ngi tuubal yàlla sunu borom subhanahu wa taala tuubub jaam buy aji tooñ boo xam ne moomut ci boppam dara njariñ ak lor daal ne waxat jaaltu fi yadi alxaamili maa fi surati alxadar xaamidan wa shaakiran wala aju siwaaka fi dunia wal axira wala tekel nii ila ahad daan ne def naa ci lettre bii ma yor mm. alf laylatul xadri xayrun min alf alf googu noonu muy junni boobu moom lay junju ci ci ci ci ci tàmbali bi leetaram bi ne ne moom laa def ci ci ci ci leetar bi mm-hmm. ngir ngir mu yët ko sëriñ bi mm-hmm. ne ko maa ngi lay sant sant goo xam ne santu jëf lay doon ak sant wax te yaakaaruma kenn ku dul yow ci àdduna ak àllaaxira mm. waaye yow sëriñ bi sama mbir day bu ko wakkil kenn nag ma ko téel sa bopp loolu la mos Moussa wax Serigne Touba tontu ko fa ajaabahu marjow fi fi daare ni Serigne Touba mi ñu yaakaar adduna ak alaaxe tontu ko ne ko alxadiya tajzibul murid ila saadati addiya day xëcc ab murid jëme ko ci ak texe ab jullit ak dundam lépp ak texe rek lay wër sëriñ Touba wax na ne addiya day xëcc ab murid jëme ko ci ak texe waaye yëmut ci jëme ko ci ak texe waaye wa ulul maqaamaati day fekk murid bi nekk ci maratib bu suufee mu yëkkati ko ba ca daraja ju kawe ci digganteem ak boromam loolu bokk na ci li addina addiyee di def wa kasratul maali addiyee day tax a bari alal koo xam ne yoroo dara sa mbir yëpp dëgër miraasal li nga am lépp jox ko Sëñ Tuubaa soo ko defee rek léegi say ngay faj aaju damaa jëlil nag leneen watoolil umur li nga xam ne moom la ñëpp bëgg muy gudd fan Sëñ Tuubaa nee na addiyee day yokk aw fan day tax a gudd fan wa mahabbati naasi ilay Sëriñ Tuubaa nee na addiyee day tax nit ñi am ci yow ak cofeel mm-hmm. eh, Sëriñ Seex bi rek boo xoolee nit ñi ni ko bëggee ak ni ko soppe fu mu génn jataay bu mu teew ñeen lii loolu loolu dara may ko ko lu dul ji muy tàkk di ko jox Sëñ Tuubaa loolu rek ci la ci ci la ko amee wa wa chapil aqraan Sëriñ Tuubaa nee na addiya day tax nga jiitu génération bi nga bokk addiya day tax nga ne sempet bokk ca tànneef ya bokk ca royukaay ya loolu mooy njariñ yi nga xam ne addiya da koy def ci àddina mu am yeneen njariñ yoo xam ne Sëriñ Tuubaa dafa wax ne addiya da koy def muy waadamu ruxitil malakayni fil xabri sëriñ Tuubaa nee na buñ la suulee ba ñu lay suul wan la ginnaaw nga ñàkk sa ndey ñàkk sa baay ñàkk say jabar ñàkk say doom ñàkk sa lépp sëriñ Tuubaa nee na buñ la defee foofa menn pexe amu fa sëriñ Tuubaa nee na mu dana joxe addiyee ba àgg ci darajey suñ ko dugalee foofa ñaari malaaka yiy laaj suñu agsee nee na doo doo leen gis sëriñ Tuubaa na dana joxe addiyee ba ci daraja jooju wa surxatil jawaasi ala siraat sëriñ Tuubaa nee murit dana joxe addiya ba àgg ci suy jéggi silaat day gaaw mel nag melax silaat ab pom la bu ne ca bispenc fa ñuy jéggee war a jëm àjjana wax nañ ne lu sew lu gudd la loo xam ne yéeg bi at li mu ay at yu bari la wàcce ba noonu wax nañ ne Sëriñ Tuubaa nee na am ay taxawaay la am fii boo ñëwee dana la laaj noo sàmmee woon ak bokk fii boo ñëwee dana la laaj na nan nga fonke woon nangam fenn foo ci ne ab alt la boo xam ne da nga fa taxaw dana am lu ñu la laaj nga tontu question réponse bu baax Sëriñ Tuubaa nee na ab murit dana joxe addiyee bàgg ci darajee buy jéggi siraat day mel ne day mel ne ak melax mm-hmm. waaw waddu xoolul janate bi xayri ay sab Sëriñ Tuubaa na ab murit dana joxe addiyee ba àgg ci bu koy dugal àjjana mm-hmm. da dañ koy dañ mbiram yëpp dañ ñëw rek ñu jàll ko ñu ne ko jàll nga sa lépp baax na Sëriñ Tuubaa nee na ab joxe addiya ba ba àgg foofu mm-hmm. waan la yara fitnatal xabri Sëriñ Tuubaa nee na benn jafe-jafe ak benn problème boo ab murit dana joxe addiyee ba àgg ci euh, suñ la dugalee ci bàmmeel doo jànkoonteek moom waaye Sëñ Tuubaa nee na yëmut foofu de waaye ak min akkali duudi fil xabri Sëñ Tuubaa nee na ab murit dana joxe addiya ba àgg ci suñ ko dugalee ci bàmmeel sax sax yi duñ ko lekk ab murit dana àgg foofu te loolu dama ciy taxaw tuuti barab maam Cheikh Ibrahima Fall bii biñ koy liggéey am na nañu seere yu wér yoo xam ne mën nga leen a wër ñu ne la sulli nañ fi ay néew yoo xam ne dara laalu leen am na ñuy dund ñoo xam ne fekk nañ waaw na ab murit dana joxe addiye ba àgg ci daraja yi suñ ko dugalee ci bàmmeel sax yi sax duñ ko lekk waaw waxee di zalik suñ Tuubaa nee ak yurud yooyu wa fil hadiyati manaafiun la taktabu fil aqlaami wala tantixu bil lisaan sëñ Tuubaa nee na addiya njariñ yi ci nekk nee na xalima yi mënuñu koo bind làmmiñ yépp suñ maasee woon di ko waxit lottu nañ ci wax ko li anna al hadiyata al waxida saa saahibaha bi isna achara alf nee na benn dërëmub addiya boo xam ne murit bi jël na ko joxe na ko sëñ Tuubaa nee na danañ ko ful ba mat fukki junni ak ñaar ci la gën gaa néew wa huwa al fiha mooy la gën a néew ci lañ koy ful wala aksaru min zalika nag léegi la gën a bari ci lañ koy lañ koy lañ ful nag nee na yàlla rek moo xam la yaalamu illa allahu malikul malikul ma asa wa jalla waaw kon kon kon kon kon lii mbindum Sëriñ Tubaa la Sëriñ Tubaa ko wax kon suñu ma doqee foofu la nekkoon moo taxoon mu jël addiya teg ko ci kanamam mm. def ko muy euh, wasila bi nga xam ne moo koy eggale ci sëriñ bi mm. kon ñu ngi dëgmal bis boo xam ne mm. bépp murit fu mu mën a nekk ci ci ci Sénégal ak fu mu mën a nekk ci bitim réew mm. na xam ne am ceeboo ngi nii mm. moo xam ne lu ci waay ji mu sax bépp jafe-jafe boo xam ne am nga ko soo miraasee li nga am lépp jox ko Sëñ Tuubaa mën ngaa waat ne fii ba déwén benn jafe-jafe doo ko am xéewal rek ngay nekk kon yàlla nañu yàlla yóbbu dañu am lu ñu fa joxe di ñaanal suñu chanta mu yàgg fi loolu te wér ci barkeb Sëriñ Tuubaa jërëjëf Baye Sëriñ Mbàkke Madina ci bataaxal bi nga ñëw fàttaliwaat te muy bataaxalub Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim ci mbay mu bayoon ba mu àgg mu jaay ko mu toll ci junni mu yónnee ko Serigne Touba te xeeboon ko lool te Serigne Touba doon ko wax mandarga yi nga xam ne wala boog tuyaaba ji nga xam ne nekk na ci addiya yaa nañ ko yàlla defal. mbokk yi lii moo nekkoon seen émission jotaayu murit doon amee fii ci ëttub Serigne Modou Rokhaya ci kanam Serigne Cheikh Anta mi nga xam ne ma ko fi nekkal Serigne bi nag yëkkatiwaat kàddoom ginnaaw bu mu sante yàlla julliwaat ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam fedliwaat yaakaaram ci Cheikhuna Ahmadul Khadim ñaanalaat Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha yàlla gën ko fee yàggal gën a doole sëriñ bi nee na bis bii rek la am muy le 8 janvier da ciy boole ñaar fetalu ñaari ngimiñ la da ciy boole laaj addiya ak di ci boole ñaanal sëñ Modou Rokhaya ñaan googu nag lépp ñaanuk bëccëg rek lay doon sëriñ bi wax ne kon ginnaaw moo njabootu sëñ Modou Mamoune gi ñoo ko bokk moom ëppale wu leen ci la ko tàmbalee ci sëriñ Sidi ba ci mujj judd ci njabootu sëñ Modou Mamoune mi ngi ko ko yëgal di ko yëgal it njabootu maam seexante gi s maam Cheikh yi nga xam ne ñooy seeni wayjur la ko tàmbalee ci buntu kër El Hadj Sëriñ Tako jaar buntu kër sëñ Ibra Ndar jaar buntu kër sëriñ Saam jaar buntu kër sëñ Daam jaar buntu kër sëñ Ibra Sucaam jaar buntu kër sëñ Cheikh Coro jaar buntu kër sëñ Moustapha Ceytu jaar buntu kër sëñ Abdou Góora nee na bàyyiwul benn buntu kër ndax ñoom ñoo moom yëf yi maam Cheikh Anta jigéen gi nee na bàyyiwul kenn buntu kër ñëpp la ko yëgal di ko yëgal it ñi mu bokkal sëñ Touba rawatina nag waa kër sëñ Afe nga xam ne bis bi ñoom ñoo ko moom nee na bàyyiwul benn buntu kër ci buntu kër sëñ Afe yi di ko yëgal it waa Mbàkke Xewar njabootug Maamoor Jaara ndax yàlla leen ko boole nee na bàyyiwu ci kenn di ko yëbal nag nee na bokki boppam yi nga xam ne moom ñëw ba mu ñëwee fe loolu la fekk ci bopp lalub sëñ mu doqee muy waa kër maam Cheikh ma Fall ndax nee na ku ne xam ne sëñ mu doqee ne ab Baye Fall la woon Baye Fall yi la foon ñu bokkal na kon mi ngi ko yégal njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gépp di ko jaarale nag ci sëñ Moustapha Fall ma nga xam ne mooy jëwriñam moom sëñ mu daminta mu jàll ci sëñ Fallu àgg ci mbooleem njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall di ko yëgal mbooleem Cheikh Serigne Touba yëpp nee na ñaanuk bëccëg lay doon daa bëgg ñëpp àndandoo ñaan lekk ko sun borom dolli ngërëmul sëñ Modou Rokhaya ak yërmaaneem ak xéwalam waaye nag fas di soññ taalibe yi nag di soññ boppam addiye ji nee daal bëggut kenn lay dara képp koo xam ne daal jafe-jafe am nga ko te bëgg jafe-jafe ba nga teggi ko ñëwal jox sëñ Touba li nga yor koo xam ne li nga yor dalaa doyut te nga bëgg lu la doy ñëwal jox ko sëñ Touba koo xamante li nga yor daa barke lu yàqu bari ca ñëwal jox ko sëñ Touba sëñ Touba nee na addiye mooy fekk fu dara newut mu def fa dara fekk fu dara nekk te bariwut mu bareel ko fekk fu lu bari nekk te barkeelut mu barkeel ko bari na nit lu muy yor di ko yàqule da caa joxut sëñ tubaa bari na nit lu muy tëdd feebar daa liggéeyalu sëñ tubaa soo dee liggéeyal sëñ tubaa dara du la jot boo dee am di jox sëñ tubaa doo ñàkk dara seen bokkum taalibe Fallou Galass Syll moo àndoon ak yéen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bismillah.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 سفي بقاء أبيهم لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له